asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q ba bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak ko li ñu seeti bopp xibaar yi. banxaas bi saytu lu jëmee ci àq ak yelleefi doomi aadama yi ci biir réew mi ci samdi bi ñoom ñoo lëkkaloo ak banxaasub ECOWAS bi pour màggal bés bu ñu jàppoo jëmale ko naka ci mbirub àq ak yelleefi doomi aadama. ba tey ci bopp xibaar yi banxaas bi seetu lu jëmee naka ci kopparub lemp bi ñoom ñoo lëkkaloo ak seeni àndandoo yi ci samedi démb bi ñoo génnee ab xaatim bu ñu bind pour ñu liggéey ci si atub 2021 bi ñu nekk ba tey ci bopp xibaar yi banxaas bu ñu naan ma foundation bu taxaw pour jigéen ñi ñoom naka ñoo bettee bànneex jigéen ñi yeewoo see bajirang ñu jox leen naka machine wolookaay mbokk yi loolu doonoon bopp xibaar yi ñu taaxeelu bu ñu dellu see ñu yàttal xibaar ñu fi jot a am ci bëccëgub tey bi comme ni ñu ko tenkee ci bopp xibaar yi ci samedi démb bi banxaas bi saytu wàllu àq ak yelleefi doomi aadama ci biir réew mi ka ñoom ñoo lëkkaloo ak banxaasu ECOWAS bi mu doon naka fukki fan ak juróom-benn si weerub yi ñu màggal naka bés bu ñu jàpp pour màggal ci lu jëmee naka ci àq ak fi doomi aadama. baaxaas bu ñu naan NHRC ñoom naka génne nañ ab bataaxal ñu wane na naka ñu ngi lëkkaloo ak ministre bi saytu wàllu wér yaram bi ci atub ren ji ndaxte naka taxawaay bu ñuy jël ci atub ren ji seeni lépp rek dinañ ko tënk lu jëmee naka ci wàllu wér-gu-yaram wàllum njàng mi ak itamit fesal li nga xam ne naka mooy garab yi ñoo defaree jëmale ko naka ci wàllu aada ak cosaan gi fukki fan ak juróom-benn si weerub janwaari doon na bés bu ñu jàpp nag banxaasub ECOWAS bi nag ñoom ñoo ko jàpp pour màggal naka lu jëmee ci àq ak yelleefi doomi aadama at mu jot askan bi yeewoo naka ci biir àddina si yëpp lañ ci ëmb bés bi tamit jàpp nañ ko pour gis ne yéene nit ñi naka lu jëmee ci àq ak yelleefi doomi aadama ñu ne naka ci atub ren bi seeni màggal bi dañ koy tuppee ci mbiru wérgu yaram bi mbiru njàng mi ak i tamit ubbi buntu pour askan bi naka ñu jot li nga xam ne naka mooy garabe yu ñoo defaree jëmale ko naka ci wàllu aada ak cosaan gi ci biir réewu Gambia bi banqaas bu ñu taxawal pour mu saytu lu jëmee ci àq ak yelleefi doomi aadama bii naka doon na seen yoon bu njëkk ñu lëkkaloo ak jawrinub ECOWAS bi pour màggal bés bi ginnaaw ba ñu sosoo seeni mbootaay bi si atub 2019 Mansour Diop doon directeur bokkit suñuy gestu lu jëmee naka ci àq ak yelle fi doomi aadama seeni commission bi moom wax ne naka bés bi dafa doon bés bu am solo te ñoom naka ñu ngi am mbégte ak kontante pour lëkkaloo ak barxaasub ECOWAS yu màggal bés bu mel nii mu ne ñoom naka seeni fésal lu muy gën a dem rek mooy ci wàllub jigéen ñi dinañ dooleel jigéen ñi gis tamit ñoom i dugal nañ seeni loxo ci jób kanami réew mi mu ne naka dinañ saytu jëmee naka ci yelleefu jigéen ñi won leen naka seeni taxawaay ci biir réewub Gambie bi Mr Diop continue di wax ne ci at yi ñu nekk naka ñoom nag am nañ nañ jafe yu bari te mu sababoo ci mbasub coronavirus bi waaye naka sant yàlla ndax jot nañoo def yene liggéey yoo xam ne naka fas yéene woon nañu koy def ci atum 2020 bi ñu génnoon mu ne am na yenn yoo xam ne naka amoon nañ si jafe-jafe waaye naka jéem nañ koy yegg bu ñëwee si wàllu commission bi ñu taxawal pour mu saytu ak ak yelleefi doomi aadama ci biir réew Gambie bi te ñu taxawal ko si atum 2019 Mr Diop mu ne naka lu bari la ñu taxawaloon nar koo liggéey waaye naka mënuñ koy def ngir jafe yoo xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel ci seen wàllub liggéey waaye mu ne naka ginnaaw am na yenn mbir yoo xam ne naka def nañ ko ci at bi ñu génn te naka loolu ñu ngi cee wane seen i mbégte kontante mu ne naka si liggéey yoo xam ne def nañ ko ci at bi ñu génn jéem nañoo askan wi lu jëmee ci ak ak yelleefi doomi aadama yi ci biir réew Gambie bi te naka naka fexe nañ pour gis ne jàngal nañ naka ñi nga xam ne ñooy saytu wàllub kaaraange bi ci biir réew mi xamal leen naka njëriñu ak ak yelleefi doomi adama ci biir réew Gambia xamal leen naka luwaa boo xam ne fësal nañ ko jëmale ko ci ak ak yelleefi doomu aadama Mansour Diop continué di wax ne seen i màggalub atub ren bi ci luñ ko tënk muy wàllu wér-gu-yaram bi wàllum njàng mi ak yenn yokkute yoo xam ne naka ñu ngi ko nar a defal askan wi ci biir réew Gambie bi xam na ne naka nañ si am jafe-jafe muy sababoo ci mbasub coronavirus gi waaye ñoom naka dinañ def lu ñu mun pour gis ne naka lu ñu yeggalutoon ci atub 2020 bi ñu jéem ko yeggal naka ci atub 2021 bi ñu nekk looloo tax naka ñu bind seen i xaatim pour gis ne naka liggéey nañ ci si at mi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci banqaas bi saytu lu jëmee ci àq ak yelleefi doomi aadama ci biir réew Gambie bi ñu ngi xamal askan wi ne naka mbirub démocratie bi dëgër na torop ci biir réew Gambie bi depuis nguur gi weccee ko ci atub 2016 ñu ne ngurub Adama Barrow bi nga xam ne naka moo nekk ci toog bi ci biir réew Gambie bi si jamono jii wecci na lu bari bàyyeekoo naka ci nguurub njiit bu fi newoon di ex président Yaya Jammeh ndax Gambia doonoon na dëkk boo xam ne naka ñu bëri dañ daan am tiitaange ak ragalu pour naka ñoo ci biir réew mi ndax ñu bari gisee woon na ne ab dëkk la boo xam ne dañoo yàqalu jëmee naka ci àqu ak yelle fi doomi aadama te yi dañ dee toroxal doomi aadama def tamit yenn mbir yoo xam ne naka antuwut lu jëmee naka ci àq ak yelle fi doomi aadama waaye naka banxaas bi saytu wàllu àq ak yelle fi doomi aadama ñu ngi xamal askan wi ne lu bëri naka wecceeku na jëmale ko naka ci nguru président Adama Barrow be ñu nekk te naka ñoom ñu ngi takk seeni i tànk tibéy pour gis ne naka génn ñoo indi yokkute ci mbir moomu. mbokk yi ba tey ci xibaar yi banqaas bi saytu koppar bu jëmee ci wàllu lemp bi ñoom ñoo lëkkaloo ak jëwrin bu taxaw pour saytu nag lu jëmee ci mbiru banque yi ñoom nag ci ndimbal bu ñu am nag mu bàyyeekoo ci jëwrin bi saytu wàllu lemp bi ci biir réew Gambie bi ci samedi bi ñoom nag ñoo génnee seeni xaatim bu ñu bindi fas yéene ci liggéey nag ci atub 2020 bi ñu nekk. waxtaan wi wax nañ ne naka dajale na taskati xibaar yu nekk ci biir réew mi ak itamit ñi nga xam ne naka ñooy saytu wàllub koppar bu jëwee naka ci wàllub lempo bi nga xam ne askan wi yeewoo ci biir réew Gambie bi ñu ngi koo fay mu doon naka loo xam ne dafa bokk ci seeni yelleef ci biir réew Gambie bi ñu ne naka xaatim bi nga xam ne naka bindi nañ ko dañ ko fas yéene liggéeyee ci atub 2021 bii ñu nekk te naka am nañ yaakaar ne dina indi naka ab yokkute ci seen wàllub liggéey te naka dinañ fexe pour gis ne benn déng-déng du am naka ci seen wàllub liggéey ci atub 2021 bii ñu nekk ginnaaw mu doon dalal gan yi ci kàddoom ki nga xam ne naka moo jiite banqaas bi saytu koppal ñoo fay jëmale ko ci wàllub lempo bi muy wuyoo si Abdoulaye Ñooke moom naka wax na ne waxtaan bi dafa doon lu am solo te naka dafa am solo naka pour ñu oo ci taskati xibaar yi xamal leen naka yenn sarta yoo xam ne naka mu ngi jëmee ci mbiru fay lempo bi ak yenn luwaa yoo xam ne naka ñu ngi ko dugal ci seen wàllub liggéey ndax ñoom dinañ doon ñoo xam ne naka ñooy génnee xibaar yi pour askan wi te naka dafa am solo pour ñoom ñu am si xam-xam bu màcc ndax ñu mun a xamal askan wi lu jëmee naka ci wàllub tasub xibaar googu acting executive director bu Gambia Bankers Association mi wuyoo si Alaaji jeg moom wax na ne ne lépp xaalis wala sax di jëfandikoo xaalis te naka weeruloo ko fenn doon na yenn mbir yoo xam ne naka dañoo delloo ginnaaw koom-koomu réew looloo tax naka ñoom ñu taxawal seen i banqaas bu ñu naan Financial Intelligence Agency pour naka ñu seytu lu jëmee ci mel noonu te naka xaatim bi nga xam ne naka bindi nañ ko pour ñu liggéeyee ko ci atu 2021 bii nii dinañ gis ne réewu Gambia duñu dugg naka ci lu mel noonu ku fa teewaloon banxaasub GPA bi di pooru Gambia bi muy wuyoo si Khady Diankha moom wax na ne waruñoo bàyyee lépp rek ci loxo nguur gi yéen yi naka ñun ñoo ko war a defal suñu bopp looloo tax naka ñun ñu taxaw pour gis ne liggéey nañ naka lu jëmee ci wàllub lempo bi te it yee nañ askan wi xamal leen naka seeni àq ak yelleef bu ñëwee naka ci wàllub lempo ñoo fay ci biir réewub Gambia bi ku fa teewal directeur général bu GRA bi muy wuyo si Mati Ndiaye Senghor moom mu ne seeni jëwrin bi gëm nañ ne naka taskati xibaar yi dañ am liggéey bu am solo jëmale ko naka ci wàllub lempo bi te loolu naka tax na dañ leen war a xamal lu jëmee naka ci askan bi ni ñoo fayee lempo gi xamal leen naka lu jëmee ci luwaay yoo xam ne naka ñu ngi ko tëral jëmale ko seen liggéey xamal leen tamit sarta yoo xam ne naka ñu ngi a fesal jëmale ko ci seen wàllub liggéey ndax lii dina doon ay mbir yoo xam ne naka dina jàppale taskati xibaar yi pour ñu mën a fesal seeni liggéey ci anam bu ko askan wi soppee bu ñu gestoo nag lu jëmee ci liggéeyub taskati xibaar yi mu doon lu am solo ci biir réew mi ndax ñoom naka dañoo yee askan bi lu jëmee naka ci mbir yu bari surtout bu ñëwee naka ci mbiru fayub lempo bi xamal leen wala sax jàngat leen lu jëmee naka ci wàllu fayub lempo bi dafay doon lu am solo te yi dina am solo naka pour seen xam-xam màcc jëmale ko naka ci luwaa yoo xam ne tëral nañ ko ak i tamit naka la ñoo mën a jëlee naka lempo dugal ko nag ci yenn mbir yu am solo ci biir réewu Gambie bi looloo tax nag ñu oo taskati xibaar yi ci ndaje bi pour nag jàngaat leen yeesalaat yenn xam-xam yoo xam ne nag war nañ koy xam jëmale ko nag ci yu banxaas bi saytu wàllu lempo bi ci biir réewu Gambie bi. banxaas bu ñu naan Ma Foundation mu taxaw pour jàppale jigéen ñi. bett na naka jigéen ñuy yeewa sa dëkk bu ñu naan Bijiran nekk sa West Coast Region ak mbégteel ginnaaw bam leen jàppale ci masunub soxeekaay mu doon naka ab jumtuwaay boo xam ne naka jigéen ñuy yeewa ca boor boobu yàgg nañ koy jooytu si taxawaay bu mbootaay bi jël naka pour jàppale jigéen ñi si seen wàllub liggéey wàññi yenn jafe yoo xam ne naka ñu ngi koo jànkuwanteel surtout jigéen yoo xam ne naka ñu ngi dëkkee ca kaw gi Ma Foundation ci ndimbal bu ñu am naka mu payekoo si Gambia Ports Authority jàppale nañ naka jigéen ñuy yeewoo si dëkk bu ñu naan Bijiran masunub soxekaay jéego bi naka ñu jël ko pour gis ne wàññi nañ yenn jafe-jafe yi ñoo jànkuwanteel si ñëwee nag ci wàll soq wala ci wàll wol ndax jigéen yuy nekkee ci boor yooyu nag dañ dee joytu ne dañ dee dox lu sori pour mën a am naka fu ñoo walee seeni dugub yi seen i mboq yi wala yenn lekk yoo xam ne naka dañ koy soxlaa wol Alaaji Bi Sow doon national coordinator ci mbootaayu Ma Foundation bu taxaw pour jàppale jigéen ñi moo moomu neen dimbal gi dafa doon lu am solo te naka dafa ñëw ci waxtu boo xam ne mbootaay wi di Ma Foundation ñu ngi waaj a màggal naka seen ñett at ginnaaw ba ñu sosoo ba tey machine boo xam ne naka machine bu bi la dina jàppale jigéen ñi yeewoo sa boor boobu ndax naka yàgg nañ koy joytu te naka bokk na si jafe yi ñoo gën a jànkuwanteel ci seen boor boobu mu ne dimbal gi dina wàññi en wu diis goo xam ne naka jigéen ñaa ngi ko en woon ci seeni bopp yi ndax ñu ngi koy doon joytu ginnaaw ba mu doon jàppale jigéen ñi ko jiitee mbootaay bi di wuyoo si Fatmata Jawara Doucouré mu ne naka machine bi dina jàppale jigéen ñi pour wàññi yenn jafe-jafe yi ñoo jànkuwante jëmale ko si wàllu wala soq mu ne mu ngay ñaax jigéen ñi pour ñu téye machine bi seen fukki loxo ak ñaar ndax machine bi machine bu ees la te it naka générateur bu mu àndal générateur bu ees la mu ne naka jox nañ leen benn at garantie ñi nga xam ne naka ñoo defar machine bi saa yu machine bi amee problème ci diggante benn at ñoom dina ñëw pour defaraat ko Landing Jaaju doon VDC assistant secretary ci dëkk bu ñu naan Bajiran moom mu ne naka machine bi dafa doon lu am solo te naka dina yokk koom-koom yi dëkk boobu noonu mu ne képp koo xam ne rek yaa ngi bugg a wollu di nga fay xaalis koppar googu naka la ñoo dajale pour liggéey ko ci yokkute gox gi ak itamit jënd essence wala yenn mbir yoo xam ne naka machine baa ngi ko soxla bu fekkee ne tamit machine bi yàqu na ci diggante bi koppar googu naka la ñoo jël pour defal ko. Adama Jaaju bokk ci askan yu yeewoo ci dëkk boobu mu ne jigéen ñi am nañ mbégte ak kontaante te naka kontaan nañ torop ci ndimbal gi nga xam ne naka mu ngi bàyyeekoo ci Ma Foundation mu ne ñoom naka dañoo yónni seen i xale yi wala seeni ndaw ñi ci dëkk bu sori pour ñu mun wollu seeni dugub yi wala seeni i mboq yi waaye naka sant yàlla ginnaaw ndimbal gi ñëw na ci seeni dëkk bi ñoom naka dañoo jaajëfal mbootaayu Ma Foundation di ci yokk naka di santi yàlla ci weerub décembre bu ñu génn banqaasub Ma Foundation bi indi nañ ndimbal naka ci dëkk boobu di Bijiran ginnaaw naka ba sampe ay lamp mbedd ci seeni léebo woot bi muy place boo xam ne naka place jureekaay la te ñii naka ñu ne yàgg nañoo joytu naka lu jëmee ci wàllub courant waaye naka mbootaay bi jàppale nañ leen si ndimbal gi naka dina jàppale noos yi si seen wàllub liggéey dina jàppale tamit jigéen ñi biir yi pour ñu mën a féexlu ci biti bu guddee Ma Foundation doon mbootaay bu taxaw pour jàppale jigéen ñi ñu ngi ko sos naka si atum 2017 ci tundub URR bi nekkee sa base jéego bi naka ñu jël ko pour gis ne naka jàppale nañ jigéen ñi yeewoo sa kaw gi wàññi leen naka yenn en wu diis yoo xam ne naka ñu ngi ko enn ci seen i bopp yi mu jëmee naka ci seen wàllu jafe-jafe gi buntu jàngeekaay bu ñu naan Nusrat Senior Secondary School seen i banxaas bu ñu naan Commerce Club ci arjuma bi ñoom naka ñoo màggal seen i mbootaay bi jéego bi naka ñu jël ko pour gis na naka yéenañ seen i ndaw ñi lu jëmee naka ci wàllum njula bés bi ñu jàpp ko pour gis ne dooleel nañ ndaw ñi te it yee nañ leen naka la jëmee ci wàllum njula mu bokk naka si jàng boo xam ne naka ñu ngi koy def muy commence bés yu mel nii naka dañ ko dee jàpp pour gis ne naka jàppale nañ xale yuy jàng ci buntu jàngikaay boobu di ñu sot di jàng naka lu jëmee ci wàllum commence ju jox leen naka naka la ñoo mën a taxawee seen i bopp ak itamit naka la ñoo mën a mënalee lee seeni bopp bu ñëwee ci wàllum njula jàngal leen naka yenn jaar-jaar yoo xam ne naka foofu lañoo ñoo mën a jaar pour dëgëral seeni i buntu njula gi ëllëg bu ñu paree naka seeni i njàng mi Ajay Ba assistant secretary ci banqaasu commerce club bi muy wuyoo ci Mohamed Lamine Mané moom mu ne ndaje bi dafa doon lu am solo te naka dina jàppale xale yi pour ñoom neen ñu lëkkaloo ak nit ñoo xam ne naka dañu am doole jëmale ko ci wàllum njula gi te naka nit ñoo xam ne tamit dañu yàgg ci wàllum njula bi dinañ fa nekk naka pour yee xale yi xamal leen naka yenn jaar-jaar yoo xam ne naka jaar nañ fa ba ñu doon naka lu ñu doon tey mu continué di wax ne xale yi naka dinañ am yoon pour mën a naka laajte yenn jafe-jafe yoo xam ne naka ñu ngi ko am jëmale ko ci seen wàllum njàng mi wala naka am jëmale ko ci wàllum jula goo xam ne naka ñu ngi ko nar a defee ëllëg ku jiite woon naka commerce club bi si New Short senior secondary school mi wuyoo si Lamine Badji moom mu ne am na yaakaar ne xale yëpp nga xam ne naka ñoo teewee si ndaje boobu noonu dinañ am naka fit bi pour def naka njula ëllëg te naka am na yaakaar ne xale yi dinañ pare pour jaar yoon wu métti bi pour naka mun a am lu ñoo yóoti ëllëg. mu ne ci at yi nga xam ne naka passé nañ ko banxasu commence club bi dañ dee def naka ab ndaje yu ci mel ni naka trade fair di jaay naka yenn juntuwaay yoo xam ne naka dafaa nekk seen i diggante ak ñuy jàng ci boor yooyu te naka loolu dafa bokk ci mbir yoo xam ne naka dañ ko nekk di def pour yee xale yi amal leen fit naka lu jëmee ci wàllum njula gi bi ci banxasu commerce club bi muy wuyoo si Fatmata E Touré moom mu ne dafa am solo pour ñi yendaw ñi naka jëmale ci wàllum njula ndax jula dafa doon mbir bu am solo mu ne naka njula mu ne pour nga doon jula bu mag ëllëg sa xam-xam dafa war a màcc ci looy def te it yow sa bopp da nga war a màcc ci mbir yoo xam ne naka yaa ngi koy def da nga ko war a xam mu ne comment student yi doon nañ nit ñoo xam ne nag saa yu nekk dañu war di xalaat di yokk seen jàng ci mbir yi nga xam ne naka ñu ngi ko nar def ëllëg ñeneen ñoo xam ne naka gaaral nañ seen i kàddu ci ndaje bi ñu si mel ni naka njulay mag yoo xam ne naka oo nañ leen ci ndaje bi ñu ngay ñaaxale pour ñu fas jom takk seen tànk tibéy jëmale ko naka ci mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko bugg a def ëllëg surtout bu ñëwee naka ci wàllum jula gi ñu ne naka waxtaan wi dañ ko nekk di def pour naka xamal xale yi lu jëmee naka ci wàllum julay xale yoo xam ne naka ñoo nekkoon si ndaje bi mun nañoo laaj yenn mbir yu leen jaaxal jëmale ko ci wàllum jula bi bu boobaa naka dinañ leen tontu ci loolu jàngal leen naka wan leen yoon bu ñoo jaar ba nga xam ne naka yenn jafe-jafe yu métti yu ñu war a daj ci yoon bi dina wàññeeku ci seeni kaw mbokk yi li ya doonoon xibaar yi leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatalee ngeen di si doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di leen ñaanal ngeen yéen doog jàmm wasalaam